mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu saa su nekk bu ñu amee yenn information xam ngeen ni tey jii nii euh, la dig di jël six personnes yi ñu arrêté ci tuuma jàpp ni seeni loxo laale na ci li nga xam ni mooy faatu asis Dabala ak Boy Wally tey nag dañ leen yóbbu ci tribunal bu giija waay jébbal leen ki nga xam ni mooy procureur mu déglu leen maa ngi dégg nag ñu bari ni tey la ñuy taxaw tey la taxaw taxawuñu pour ñu àtte leen mais dañuy dem bureau procureur ñoom ak procureur procureur yeggale enquête bi laaj ak ay tontu su paree nag moom procureur am na sañ-sañ wax ni dañ leen delloowaat dikk ngeen ubbil ma enquête ci angle sàngam waaye am na sañ-sañ tamit defeere leen ca kaso ba six personnes yooyu nag nga xam ni tey ñoo ngi jamono jii ñoo ngi ci bureau procureur information bi nga xam ni moom laa ciy joxe mooy septième personne bi bi nga xam ni dafa daw kenn gisu ko boobaak léegi élément dig arrêté nañ ko tey biñ ko arrêté nag ñan ñoo ko arrêté mooy élément dig yi ñoo ko arrêté loolu nag dama ci félicité directeur police nationale di ci félicité ministre de l'intérieur waaye di ci félicité euh, waa dig yëpp élément digg yëpp waaye rawatina commissaire Adramé Sarr ci liggéey bu xarañ bi bi nga xam ni liggéey na ko ci septième personne boobu nga xam ni depuis boobu ñoo ngi koy wër te gisuñu ko mujj nañ ko mais moom septième personne bi demul dem demul tey ji nii tey tey tey ji demul bureau procureur parce que moom moo ngi jamono jii dig ñu di ko moom it di ko déglu moom ban rôle la joué ci faatu Aziz balaa ak ki nga xam ne mooy booy waan information boobu laa leen jox ni septième personne bi réeroon arrêté nañ ko Ousseynou arrêté nañ ko euh, Dik arrêté nañ ko jamono ji may wax euh, moo nga fële ca euh, six personnes yaa ngi ci tribunal bu Guédiawaye reconstitution des faits bi nga xam ne nag ñu bari wax nañu ne am na amul defu ñu reconstitution de faits parce que souvent ba dañu laa yóbbu ci procureur sax lañu daan def reconstitution des faits mais bii yoon dañoo laale ñu wax ni dañoo laale tudd ci affaire góor jigéen ci information yi nag yi nga xam ne man am naa ko mooy jàpp nañu ni bu ñu demee def reconstitution des faits dina am jéyee yu fa am demoon nañu ba nga xam ni sax dén nañu wut ay matukaay euh, de sécurité bu doy foofu mais après ci information yi nga xam ne police ñu ëpp ay nopp seeni bët gën a yaatu suñuy bët ñoom dañoo mujj ni nañu bàyyi reconstitution des faits yi ndax enquête bi leeral na lu baree baree bari encore une fois reconstitution des faits amul lu dul procureur sàkku ko ginnaaw bu leen dégloo tey ginnaaw bu leen dégloo tey mën na wax commissaire Adramé Sarr ma yor bi ni ko demal nga defal ma reconstitution des faits loolu daal moom la ñu information bi ñuy joxe moom mooy septième personne bi arrêté nañ ko tey